mu ni Seydi Hadj Malick mu si mag ñi mu amoon mag ñi mu amoon dajale leen dajale leen ñëw ñëw tënku ci moom tënku ci moom taxu leen woon ñëw taxu leen ñëw de lu leen taxoon a ñëw lan moo leen taxoon ñëw mooy mooy dañu doon wut xam-xam dañ doon wut xam-xam gëstu gëstu moo leen taxoon a jóg. moo leen taxoon a ñu joxañ leen Malick. ñu joxañ leen Malick. ñu ñëw. ñu ñëw fekk Malick. fekk Malick mu mat. mu mat leen. mat leen professeur. professeur. di leen jàngal. di leen jàngal. te mosu leen a wan boppam. te mosu leen a wan boppam. ñu yëg ci moom. ñu yëg ca moom. yàlla ja. yàlla ja mu mat. mu mat rafet rafet te yàlla te yàlla moo leen taxoon moo leen taxoon di wut xam-xam di wut xam-xam ñu faf ñu faf nag wóolu ko wóolu ko dénk ko seen bopp dénk ko seen bopp àndandoog moom àndandoog moom wëllërente wëllërente ci diine ci diine ak tarixa bi mu ni waaye kenn ku ci ne mu ni waaye kenn ku ci ne ba ngay jóge fa nga dëkk ba ngay jóge fa nga dëkk di ñëw njaarnde di ñëw njaarnde di ko fa fekk di ko fa fekk si tënku ci moom. tënku ci moom. indiwu la woon. indiwu la woon. jàng. boo amee xam-xam. dellu sa barab. dellu sa barab. faf ñu ñëw. faf yàlla ji mat. tombeeg yàlla ja mat. ñu xam ni. ñu xam ni nag. wuti ko faneen. daf leen di tardeel. daf leen ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. wëlbatiku. jox ko seen bopp. jox ko seen bopp. <laughs> loolu moo tax. loolu moo tax nag. noonee mu liggéey. noonee mu liggéey. ku am ku ne. am ku yoon wa. yoon wa. wan na la ko. wan ko. taxawaay rek. taxawaay lay doon. lay doon. nga nekk ca. nga nekk ca. mu tax mu wóor la doo ko ñasal lu ni toll. yàlla doo ko ñasal lu ni toll. mu lay fàtte. mu liggéey boobu nag. moom la nekkee woon ak ñoom. moom la nekkee woon. ak ñoom. ak ñoom. liggéeyu jàng. liggéeyu jàng. ak jàngale. yar. yar. fexe ba. fexe ba. teggin ya. teggin daje ci ku mu am. daje ci ku mu am. wax na ko léegi. wax na ko ci teggin. ci teggin. ngay jaare. ci ngay jaare. yegg. yegg fa nga bëgg a waaye ci ñàkk teggin. waaye ci ñàkk teggin nag. fa ngay doxe. fa ngay doxe. toskare. ba faw. ba faw. te dootoo delluwaat. te dootoo delluwaat. ci njub ga. ci njub ga. moo tax teggin rek moo am solo. moo tax teggin rek nag moo am solo. tariqa. tariqa nag. bii nu tënku. bii nu yaram. yoonu yaram. dana fexe. dana fexe. ba taalibe bu ci tënku. ba taalibe bu ci tënku. teggin ya. teggin ya mooy jiitu. mooy jiitu ci laneen looy wut. te laneen looy nar a wut. Cheikh. Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. وحق بروم وحق بروم وحق مامم وحق مامم يننتي بي صلى الله عليه وسلم يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو وحق بروم مو وحق بروم وان كو نيكو وان كو نيكو شيخ مي شيخ مي دوينا دوينا بور دوخال بور دوخال طريقه بي طريقه بي يالا اندي تياك موم يالا اندي تياك موم ولبتيكو ولبتيكو wax ko ni ko wax ko ni ko sa borom li mu bëgg sa borom li mu bëgg mooy mooy ku ànd ak yow ku ànd ak yow da ngay nangoo da ngay nangoo jeex tak jeex tak fil xitma fil xitma الفناء الفناء في خدمة الحضرة دون رؤيتها دون رؤيتها nangoo jeex tak ci liggéeyal xadara yàlla te doo yëg nga doon kan nga lan nga def lan nga def foo mën a yegg it mën a yegg itam am da nga am tawaddo mi yow mi li nga yeggit du tax du tax nga nga yëngal say përëg جه تاك تي ليغي حضره يالا موي موي سبب التربيه سبب التربيه في طريقه بي في طريقه بي ليغي ديف ليغي ديف دانكوي ديف دانكوي ديف تي دوني تي دوني موما تاخ دي موما تاخ دي ديف توب با توب تمسكي تمسكي بالكتاب بالكتاب والسنه والسنه النبويه النبويه الشريفه الشريفه موي موي بوم الشريعة بوم الشريعة بوم الشريعة بوم الشريعة القرآن القرآن waxu yàlla waxu yàlla ak nag ak nag li nga xamante li nga xamante ni sunna mooy sunna te sunnaam te sunnaam mooy la wax mooy la wax ba la ñu jëf ba la mu jëf ba la ñu nettali ba la ñu nettali ko defee nu ko defee wala nit def ko wala nit def ko mu noppi ca mu noppi ca noppi ga noppi ga moo koy wéyal moo koy wéyal sunnaam loolu la. sunnaam loolu la. mu ni nag. boo nangoo. boo nangoo. géeju tarixa bi. ci géeju tarixa bi. il faut nga nangu. il faut nga nangu. li ngay def. nga def ko. nga def ko. ci tënk-tënk. ak teggin ya. ànd ak teggin ak yar ak yar ba. boole ca nag. boole ca nag. xàmmee. kan. kan nga war a tóojal nga war a tóojal ak kan ak nga warta tóojal nga warta tóojal